ak bitim réew ñu amaat ci ñoom mbégte bu baax a baax di am ci ñoom kontante di leen ñaanal jàmm di amaat nag xol bu seddu guy ci fii ñu teew tey tubarkaal la ñu ngi fii kër seex Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou ñëw fi nag ngir xew-xew wu rëy xew-xew yi mooy keroog ba bis ba ca taset ba seex Béthio Thioune di daw du topp ba tir ba di jébbalu ci Cheikh Saliou Mbacke Xaadim Rasoul moo war sunu teewaay fii ñu ñëw fi nag tey Cheikh Béthio woote ko mu nekk bis bu rëy mu ci sant Serigne takk ay lappam takk ay rajoom ngir woowaa àdduna ngir ñu ñëw seere la nga xam ne moom la ko Cheikh Saliou Mbacké Khadimou Rassoul defal ñu ngi nag fii ci salle bi nga xam ne fii la dëkk ci Mermoz fii ci kër gi autorité yi ne fi kilifa yi ne fi nitu diine yaa ngi fi nitu àdduna yaa ngi fi ba tax na dañuy jàll rek tàbbi ñenn ci ñoom laaj leen ay kàddu ñu wax leen ñu laaj leen lu waral seen teewaay ci bis bi ñu wax ko bu ñu noppee ñu wax la relation moo dox ci seen diggante ak Cheikh Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou ba nu teewal ko tey fii ci Mermoz fas yéene ànd ak moom cant gi sant Serigne Saliou kaddu gi nag dañ koy tàmbalee ci taawam bu góor ñu koy wax Serigne Saliou Thioune gël tàppe. loolu na ndax boo xam ni day bisub Serigne Saliou. ci tàmbali ba ba fa mu mën a yem Cheikh bi yàgg koo amal muy bis boo xam ne Serigne Saliou. da ko caa joxoon ndigal mu koy màggal muy dajeem boobu dajeem bu tedd boobu mu daje woon ak moom kon mënunoo def lu dul mu doon bisub mbégte ci ñun. bëggoon nañ xam lan moo waral 17 avril ba tey Cheikh Béthio woote tàllal baasu mag bii togg berne yi mu togg ngir sant Serigne Saliou lu waral bis bi luy cosaan li. mooy mooy li ma la wax léegi mooy dajeem boobu mu dajeeg sëriñ Saliou ca toolu baayam ànd bi mu ànd ak moom te mu barkeel lool. te ñëpp teg ci seen bët bis boobu lay amal cant gi kon foofee la la la la la tàmbalee la yëf tàmbalee ca tool baay ba ca tase moo waral bis bi. bu baax a baax di am ci yow mbégte di am ci yow doon la laaj lu waral sa teewaay ci bis bi tey. suñu teewaay nag eh, ay ndaw lañ ñu yónni ñu ñu am ci mbégte son excellence président Macky Sall moo ñu yónni ci bés bu màgg bi. nga xam ne Cheikh Béthio moom moo koy organiser ànd ci ak cantakun yëpp ma ànd ci nag ak jawrin yu bari ci ci réew mi mooy Abdoulaye Diouf Sarr di Moustapha Diop nekk ay talibé ànd ci it ak ñetti vice président assemblée nationale euh, loolu mooy wone rek ne bés bi bés bu ñu fonk la fonk nañ ko parce que dañu xam ne réew mi lu baax lañuy ñuy lu mel nii bés bi bésu fàttaliku la mais ci li ngeen tënku muy cantakun man bu ma ko déggee li ma ciy jàngat moom mooy bu ñëpp sante senegal jëm kanam Cheikhul Khadim màggal gi cant la woon dama bëgguñu santal ko boromam cant ju ci da ngay am lu la neex rek di sant cant am na ñoo xam bu ñu nekkee tolof tolof la ñu sant seen borom parce que fi ñu wéeru moo wër moo wóor mooy ngëm donc ma jàpp ne képp kuy sant doomu aadama bu yàlla baaxee nga parce que am nga ngëm gu dëgër sa dënn lu baax a ci ne parce que ku sa dënn feesul ak lu baax doo sant moo tax ñuy ñaan yàlla sénégalais yëpp di sant pour ñu jublu ci liggéey réew mi ñun ñëpp buñ tënkoo di sant rek jàmm rek la ñuy seq ci suñu biir te dinañ fas yéene góorgóorlu ba réew mi jëm nga kanam donc bés bi bés la boo xamante dañ ci profité di ndokkel sëriñ bi di ñaan Cheikh Saliou Mbacké yàlla yokk leeram waaye di ñaan it réew mi jàmm am fi président Macky Sall li mu namm ci réew mi cheikh bi jàppale kook ñi mu àndal yëpp pour réew mi jëm kanam parce que du intérêt cheikh bi kese du intérêt président Macky Sall intérêt réew mi la moo tax ñu bokk kook yéen bokk ci cant gi comme ni ma la waxee rek ñu ñaan yàlla ñun ñëpp ñu tënku di sant. mbokk taalibe yi mbokk téléspectateurs yi ñu ngi ci cant gi ba ah, ñu ngi fii ci Mermoz kër bis bu rëy bi nga xam ne ci lay sant Cheikh Saliou Mbacke Xaadim muy bés ba nga xam ne moom la daje ko moom ca tase tubarkàlla muy le 17 avril ñu woote ko nag mu nekk woote wu rëy ñi ngi fii ci Saalum Cheikh Béthio Thioune fii ci Mermoz fii ci kër gi di waajal guddi gi nag di waajal cant gi toog ak nag sang bu baax sang bu tedd Mbacke Balla sa di doom ci Serigne Mourtala Mbacke ñu buggoon xam lu waral teewaayam ak lan la yëg tey ci bis bi Balla Issa seex bi lay suñu xarit bi suñu lépp mu yàgg ak moom lool muy def at at mu jot mu yónnee ñu nag ci màggal gi def na ko def na ko lu mat lu ma juróomi at couleur nekkee ci ci yi daan daan wax na nag yi ñuy yónnee sëriñ si na si nagu suñu aboo jiitu loolu ñu jàpp ko ba seet nañ ko ñaari yoon sax ci ci ci ci ci ci ci ci bi waaw moom suñu xarit la suñu suñu suñu suñu lépp la moo waral suñu suñu teewaay cheikh bi ñu ngi lay siyaar bu baax mu mel ne nag barki démb da woote ni ñëw leen génn sant le ma sëriñ Saaliw addina bépp ñëw na du Sénégal dong addina bépp moo ñëw waaye seex bi sëriñ Tuubaa cheikh Sidil Maxtaar borom Mbàkke Kajoor borom Gànna borom guy mbind da jël te gëm Serigne Touba te kennal ko te kennal Serigne Saliou te nga xam ci gëm ak Serigne Saliou lool dafa dafa am loo ci xam nga woote woon ñëw na dafa jël te moom nga xam ni Serigne Touba kenn du moom dafa jëkk jël mbakk yu fay mii mi ko toogal ndakaaru ak lu ko war lépp mu nu ko demal ma ci bis ba am nag lu mu ko jox mi ngi ci poosam ne ko tegal ma ko ci loxob cheikh bi na ko defee ci loolee muy sant sëriñ Saaliw man kenn du ma ci jiitu mbàkk yu dana ci ñëw sëriñ bi ak kan kii cheikh sinil maxtaar doyloo jox ko baatam jox ko kàddoom te sa digganteeg moom di ajuma gaawu benn bis dox bi kooku mooy kan mooy sëriñ Basiiru mbàkkam cheikh abdul xaadir yi li maay teeg bu ëllëgee xaadir borom nit ñi ma mën a sëriñ seex bi xam nga ku sëñ Basiiru yebal ki nga xam ni boo ko séenee màggalu Tuuba la wala Poroxaan ki nga xam ni boo ko séenee màggalu Tuuba la wala Poroxaan mooy Serigne Basiiru Mbakke moom Serigne Moussa Basiiru moo kii nag bàyyi ma jege sëñ Saliou soxna Binta Jaxate jur bàyyam mu ne ko kaay dem la ma ca bëgg sama jëmm ji Cheikh Madou Bachir la may yéene ci Cheikh Béthio ak li mu liggéeyal sëñ sa jëmm ji laay wattee sama jëm ji moo tax Cheikh Mamadou Bachir ñëw àndanteeg sëñ Modou Mbakke si bàyyam jàngal na lu bari ci yoon wi àndante ak sëñ Mbakke Diop moom sëriñ naan Diop àndante ak sëñ Jili Njaay àndante ak sëñ Alaaji Buso Cheikh Mamadou Bachir nee lu ma am tey lu ma am na la fekk ne ku la fekk si sëriñ Saaliwu la fekk si moo tax tey délégation bi ñépp ñëw nañu Cheikh Mouhamadoul Bachir moo leen yebal nii ak nag soxna Wali Kébé moom soxna waalo moom sëriñ Saaliwu mun ko it kenn ku ne xam na sa maam la ñuy sant tey demal teewal ma fa ak ki nga xam ni ah Mbakke dangaa wooteel sëriñ Touba. sëñ Saliou mooy Serigne Touba sëñ Abo Mbakke moom Cheikh Amadou Mourtala góor yàlla baayam moo tasaare diini ji ci Afrique ak ci Europe bàyyam fu mu mës a tukki maa ngi moom ànd moom itam ñëw na ànd ak magam Serigne Sidi Serigne Cheikh Amadou Bamba moom Cheikh Abdoulaye Lahat ñëw na fi ak njabootu Cheikh Abdoulaye gépp waaye nag Cheikh bi kat am baat boo wax te muy dëgg. waaye tey Sénégal dund nañ ko gëm ko fekk si nañ la ci da bu ma kenn mereel kenn bu kenn xuloo kenn li sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké def na ci man doy na wu ma kenn xeexu ma kenn kontaru ma kenn ah cheikh bi nag président la république tey gis naa délégation bu ne mu yónnee ko fu ne waaye tey nag Macky Sall li ma am lépp jox na la kii kan la yebal si Makhtar Ba ministre bi nga xam ne ba muy étudiant la jébbalu ba muy étudiant rek la jébbalu moom la la yebal si mi ngi nii toog kan la dendal Moustapha Diop ministre gànkal ma du ma xuree jëm maamam indi nay fetalam ci kanam Serigne Touba sotti ko fi ni ko tiit naa yoonal xiyaam ndax li ma rey Serigne Touba ni ko mel nga ni tey ku juddoo ci sa ndey kooku la àndal mi ngi nii Serigne bi ak kan ku gore ku yaru meeru yoof dëkk ak yow ministre Ablaye Diouf Sarr mi ngi nii toog sëriñ bi ak kan ah Moustapha Cissé Lo allah jaalu loo bàyyam dinaa wax ni yàlla moo ma bind waaye sëñ Bamba moo ma maas mi ngi nii toog àndanteeg délégation bu am solo ak kan Gorcé yàgg président de la république lool muy Abdou Mbow mu mel ni bon Alaaji Mbàkke yu fay mi ngi ànd ak délégation bu mat délégation mu diiwaanu Masaalikul Jinaan 17 dafa yàgg ci diine ndax julli juróom 17 la ñaar ñaari rakkay suba ñeenti rakkay tisbaar ñeenti rakkay takkusaan muy fukk ñeenti rakkay timis muy fukk ak ñett ñeenti rakkay gee muy fukk ak juróom-ñaar kon 17 yàgg na ci yoonu murit bi 17 it jaaxal na leen Serigne Saliou Mbacké 17 ans la fi toog kon 17 war na leen a jaaxal bon 17 moomu nag moom la ñu teew tey jii kon bu demee ba numéro 7 di juróom-ñaareelu xarifa Serigne Touba di juróom-ñaareelu doomi Serigne Baara yokk jubaay Touba juróom-ñaari sooroor. jumaay ñaar Dakar mu def ci juróom-ñaari milliards jumaay Tuubaa mu def ci juróom-ñaari milliards bàyyi ba le premier juillet di juróom-ñaari weer mu nekk xaadimu rasool lii ma tiim ne asamaan di juróom-ñaar lii ma taxaw di suuf di juróom-ñaar kon numéro set bu yónnee kan la yónni alaji Mbàkke yu fay mi yor baatu Serigne Touba ci Ndakaaru ak jumaa ju mag jee nga xamante ni mooy Masaalikul Jinaan yónni ko nag ci ki nga xamante ni juróom yi mën nañ ko seere ci Serigne Touba digganteem ak Serigne Saliou ndax nag làmbi nettali maa fekkee ub làmb ja juróom yi ma lay bëgg a wax muy gëm wóolu doyloo yaakaar ak bëgg kii toog Serigne Saliou la ko def kon lu ngeen gis rek Serigne Saliou kàddu yi nag bëggoon naa mu gudd ndax yéene naa ko ko lool tax ki tax tax yi tax te du taxaw ni maa tax bu la taxalee say tax dangay ngay taxaw ni ko yaa tax yow loo am Serigne Saliou kon na ñëpp di jërëjëfe Serigne Saliou ma ni dégguma leen ne nee leen jërëjëfe Serigne Saliou jóg leen taxaw yéen ñëpp ne leen jërëjëfe Serigne Saliou kon nag kàddu gi wala ngóor keroog bañ demee njàppandal foofu lay wàccee kàddu gi bañ demee njàppandal maa ngi moom mi ñoo ànd ci kanamu Serigne Saliou yàlla dogal Serigne bi am Saliou bi Saliou bi sëriñ bi yónni ko ay bërigo diwlin saaliwu bey sëriñ bi yónni ko ay bërigo diwlin ñu toog kawlax addaye xol fa dayi lii yàlla dogal moom mii mu ni ma jógal wax mbooloo mi ni leen sëriñ bi daa soxla ay di bërigo diwlin ok sëriñ bi daa soxla bërigo diwlin ñu wut ñeenti bërigoy diwlin naka la ni képp njàppandal sëriñ bi ne dabal leen ma saal bi ma ma yónni woon diwlin ne ko cheikh bi andi na fi diwlin te lii la sama bëgg-bëgg la woon ndax daara ji moom la soxla woon keroog ku mën xasida sëriñ bi nee na kon bégal leen seex Béthio ak ñi mu àndal mu mel ni bon sama kàddu du gudd ndax ñun kenn rek la am kenn kot rek doom muy sunu jëwriñ mi ngi nii te nag ngétteel gaynde bu seggalee bàjjen mbote dey mooy tu kon nag li ñuy def kay mooy jébbal na kàddu gi bu yaatu woon nag des sa la mën a waxal sa digganteeg sëriñ Saaliwu loo xamante ni ñun fukki at yi dara dara ci waaye buñ ma yebalul woon sax war naa ñëw sama ñëw bopp ñëw goo xam ni du ñëw sax toog ci fauteuil yi waaye day ñëw bokk ak yow liggéey bi ba ñu tekki tànt yi waaye ku baax kooku nga xam ni dañoo dimbali ci kàddoom ak jëmmam ni ma yóbbul ma ko Cheikh Béthio ñépp war nañoo xam ni ak cawarte gu mag gu rëy laa àndal ngir ñëw saafonteeg yow ñoo ngi lay jox ab yóbbanteem di la xamal ni nee na bés bii ñu defal Seex Saaliwu te nga yàgg koo def muy ñaan ngërëmul Sëriñ Tuubaa ci dajeloon bésu tey bii yal na ko yàlla ful lim bu bare bare bare bare mu ànd ku giiw wér gudd fan liggéey bu ñu nungu waaye lu mel nii ku ko gis ku ne te du ren du daaw war ngaa jàpp ni liggéey bu ñu nungu la ndaxte réew mii wala àddina ji ñu ne yàlla daf ñoo baaxe lim ñu baaxe mooy daa jël ci jëmmam ju tedd ji yàlla sol ko ci jëmmi nit ñu tudde ko xaadimu rasulullaay mu wàcce ko ci réew mii muy loo xam ne lii ak mbaaxe la goo xam ne ak tawféex kenn mënu koo wutal sa bopp ci sa coobare bopp ba am ko kenn xamul it foo koy wute te jàpp naa ni mënuñu koo ñàkk mu baaxe ko ku tedd kooku ci Sëriñ Tuubaa moom it jël la nga xam ni mooy jëmmam ci nit sol ko ci sa kilifa gu baax googu muy Cheikh Saliou nga xam ni sëñ Saliou Mbàkke day mënuñu ko woon a ñàkk waaye xamuñu woon it fuñ koy wute bu ñu ko yàlla indilee ba ñu mel ci moom ni ñu mel ci moom tew feex waru koo munu munu koo dab kon nee na bés bii warul woon a yem ci ñii fi ne ci tànt bi di ko màggal àddina bépp ko war a màggal ndaxte ku mel noonu day dootu fi am mukk ci àddina ndax li la koy wonal mooy kenn la fi te it ba tey jógu fi ndax lool làmb daj Cheikh Saliou Mbacké mel gi nga mel ci moom nag ak sey gi nga sey ci moom ak bëgg gi nga bëgg ci moom ba mu ñépp xam ni sa lépp sëriñ saaliwu la yow day xanaa loo bëggul waaye loo bëgg sëñ Saaliwu defal la ko ñoo ngi ñaan ca màggawayam wa ak la nga xam ni yàlla rekk ko ko xam ak jëmam ju tedd ja yàlla na yàlla ful la nga bëgg lépp jox la ko jox ko njaboot gi defal ñu ko defal ko réew mépp sëriñ bi nee na mi ngiy bég tey joxe ab yóbbante ak ñaan ci ki nga xam ni moom la yàlla teg ci bopp réew mi muy président Macky Sall di doomam di taalibeem di koo xam ni ku ko fonk la te réeroowul ak moom ci jàpp gi nga xam ni jàpp na ko ci sa bës bi ndax ni ko nii ko Ablaye Mbaye waxe délégation bii mu fi yebal sëñ Maxtaar Ba di taalibeem Sëriñ Tuubaa jiite ko ànd ak sëñ mustafa ak mbooloo mu tedd mii ñu àndal ak sëñ Mbacke jafe na ñu gis délégation bu ko ëpp solo ak bu ko ëpp pas-pas nee na nag loolu mu la defal moom la ko defal taalibe murid yépp la ko defal mu ngi ciy bég di ko sant di ko ñaanal di ko xamal tamit ni ko lépp loo xam ne lii mi ngi koy bëgg di ko bëgg ci réew mii muy lu ko jëmale kanam yàlla na ci dajale tawféexi sama borom na dugg ci cant gi ñuy cantal Serigne Saliou ndax li ciy jógee lu ne moom it mu rogalaat ba ci moom ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala ndigal murit bu mu jot da nga sëgg te ndigal rek moo waral lii kon ci turu ki nga xam ne ginnaaw yàlla moo nu fi yebal muy a Cheikh Bachir Abdoul Qadir nga xam ne ki nga xam ne mooy sëñ Tuubaa tey ci kaw suuf dafa wax ni mooy bëtam di nopp di tànkam kon ci turam ak ci baatam ak ci ndigalam noo ngi nuyu mboolem jullit yi fi teew ñépp te di la xam ne rekk xamal ne la lépp loo xam ne def nga ko ci rek yow sante ko sëñ Saaliw rek nga ci jublu waaye murit yi ak jullit yi war nañ la ci njukkal ndax sëñ Saaliw njukkal ko ak sant ko ak gërëm ko war nañ ñépp kon mel na ni bis bi ñépp nga ko defal loo tax ñépp la ci war a sant ñépp la ci war a gërëm ñépp la ci war a ñaanal kon Cheikh Bachir Abdou Khadre nee na mu ngi bég di sant di gërëm ci sa xalaat bu rafet bii ak ci sa jëf jii mu ngi ñaan nag ndax moom itam la ne ja xolam ngir sa jëf ak sa wax ak sa pas-pas mënu koo tudd moom it lott na ci tudd ko lott na ci wax ko waaye nag yàlla mi nga xam ne moom dara tëwu ko moo gën a jege nit xolam lu waaye di bëgg a def xam na ko lu waaye def xam na ko te ëllëg si biir mooy atte yàlla moom moom xam na la nga xam ne ëmbal na la ko ci ci xolam te yàlla rek a tax ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak lii nga xam ne danga koy defal sëñ Saaliw kon nee na moom ñaan rek ci yàlla moom la man ci barke borom Tuubaa ak Cheikh Saaliw lii nga nga def ko ba doyal sa njaboot sa njaboot doyal te ànd ko ñoom ñëpp kenn bañ a manqué te yàlla yokk man gi ak barke bi ba lépp loo xam ne yéene nga ko ci sa xol bëgg koo defal sëñ saaliwu yéene joojee tolloog sa man-man te nga ànd ko ak njaboot bi te mu ànd ak wér ak mucc daanaka sax bu ko nit di misaal ci kër bu la yàlla defee borom kër nga bugg a leyal sa njaboot yàlla dina la may xel moo xamante ne xalaat nga ne boo ko tegee nit ñi lekk ba suur loolu mooy li mu tuddee plan Sénégal émergent moom la yàlla jox réew mi plan boobu la jàpp ne bu ko defee bernde yi dootu dakk kon képp ku nekk ci réew mi war ngaa ñaan mu sotti pour ñépp nekk ci jàpp moo tax mu ne bu ñu ñëwee fii ci tant bi nga xam ne Serigne Saliou lañ ko defal te biir na ko ne luñ ñaan ci Serigne Saliou yàlla def ko mu ngi lay dénk mu ngi lay ñaan nga ñaan taalibe yi nga ñaan plan boobu nga xamante ne moom la jàpp ne mooy suqali réew mu yàlla def mu suqali réew nee na nga jàppale ko te ñaanal ko kilifa yi jàppale ko ñaanal ko taalibe jàpp ci ñaan pour Sénégal jàmm am li nga xamante ne ci boj saalum ñu ngi koy dégg muy mbiri Casamance yàlla na ci yàlla def jàmm Sénégal gi nit ñi nekk ci jàmm di sant rek parce que sëñ bi nag sant moom ku koy def ku ne war na ñoo xam ne ci mbégte nga ne kuy sant ku ne amoo lu ñuul ci sa dënn parce que nag ku santul dingat te ku dingat réew mi di dox kon nañ continuer di sant ku réew mi dox loolu nekk na loo xamante ne ku sa xel gàttit boo ko liiree war koo xam réew bu ñu koy defar nit ñi dañuy ànd joxante loxo yéene wante jàmm tey jii leer na ma ne taalibe bu fi ne boo yëkkatee ab tibb bu koo sax soo gisee ko saxul da nga ko koy saxal parce que yàqu dënn mooy loolu lii ngay def nii ci réew mi di ko def ci taalibe yi yow mi nga xamante ne Serigne Saliou moo la fasciné façonné la nga continuer di liggéey liggéey boobu ci nit ñi waaw boo xewlee lii ku nekk war na fee ñëw tàll loxo yàlla yàlla defal ko li mu bëgg moo tax président Macky Sall nekk taalibe Murit nekk taalibe Serigne Saliou nekk taalibe Sëñ di Maxtaar soxla na ñépp pour ñu jàppale ko pour mu suqali réew àndandoo booloo nekk benn jëwrin yi jiite liggéey bi ñu fas yéene la siyaare sant la ànd ak yow sant sëriñ saaliw ci bis bi moo tax ñu ànd jëwrin yépp kenn desul ñi ñëwul mooy ñi nekk ci liggéey bi ci waañ yi ci organisation bi ñu délégué ñu ñëw ngir jébbal la siyaar bi yaa nu dimbali yaa nu xamloo àdduna xamloo nu sunu borom xamal ñu suñu àq ak suñu yelleef ci kaw suuf yaa ñu jàngal citoyenneté yaa ñu jàngal ab citoyen nu muy nekk ci république yaa ñu jàngal le rapport entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel da nga ñoo jàngaloo liir loo ñu yu mag yi ñu xam xàmmee nga tàbbal ñu ci àdduna defal ñuy xéewal dem ba lu ñu bagg man ko dem ba lu ñu diir jam ko à travers le monde vous avez des représentants partout rien qu'en France il y a plus de trente daara je ne compte pas les daara de l'Italie ni ceux de l'Espagne ni ceux de la Chine, ni ceux du Japon, ni ceux du, Canada, ni ceux des Amériques, ni ceux de la Suisse. Serigne Saliou a fait un maillage à travers le monde. Il a étendu ses tentacules partout, à travers l'Afrique, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, l'Australie. yow rekk a jara moo tax ñu dajaloo ne àdduna ah, la ñu ne ñépp a bëgg lu baax ñépp a bëgg lu rafet ñu ne nañu jël suñu mbel yeeg suñu mbellaat yi nañ ko dajale nañu nas nañu sos nañu xalaat li nga xam ne dinañ ci jéem a dab sa mbég te mbékk rek la ñuy sàkku cruiser SW 200 version blindée ndax bii war Nations Unies mu ñuy dem dans les zones un peu dangereuses moom la yor ma ne ko kat bi ma ci bëgg mooy bu am option yépp ma ne ko lu mu am mu ne ma am na trois panoramique am na trois ouvrant am na GPS am na navigateur am na boîte à vitesse automatique am na frigo bar am na sangam am na sangam am na sangam ma ne ko kat suñu sang ba. ma ne ko kat sunu sang ba lu neex sangam ba neex na ko lu neex sangam ba neex na ko mës nañoo for mu ne nu ñëw na ci mbàkke ne ko ay mbubb lañ laa bëgg ñawal yan couleur mu ne ko weex baax na bleu baax na ñu ne nañ jël bu weex lu mu njëkk a tudd moo gën weex sa sag ba nee na weex baax na moo tax ñu wutal la bu weex tal version métallisée moo tax ñu àndandoo nekk benn say benn mbooloo le peuple des Tiantacones est devant vous aujourd'hui pour essayer de vous rendre grâce nit pëste fa ko def pëste boobu nag dina feeñ ci booy wax ñépp déglu bam jërëjëf ci sëriñ Sall ko jël wax jërëjëf ci sëriñ Sall jërëjëf ci sëriñ Sall jërëjëf ci sëriñ Sall sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké xalif général kull murid yàlla na fi yàgg te wér yow Serigne Moussa Mbacké général sëñ Sidi sëñ Cheikh Sidi Maxtar Ah bah Personne ne peut dire te yii Serigne Saliou sama sakk bi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général kullu murid di Serigne Touba sur terre. kii dama ne li ci lépp dama koo xam damay wax fi ma toll rek waaye nag li ma yëgit dinaa ci wax li ma ci man je me sens barke Serigne Touba yëg naa loo xam ne fii mu ne je sais juste je suis inapte à audiblement ce que je ressens ñu wax de Serigne Saliou rek je me sens honoré ñu ngi maa ngi sant lool xalifa général bi mu waaye maa ngi sant sëriñ bi suul Abdou Khadre mu sama wëlëree doomi sëriñ Saaliw yooyu yi ndax doomi sëriñ Abdou Khadre Mbacké yilimaani Tuubaa dëgg la may lay lu demee ca moom moo ma ne sa ceex gi Serigne Saliou ma ko wax m'a ouvert l'esprit. Je peux accéder supérieur administrateur civil principal de classe exceptionnelle là j'ai eu à de la gestion de collectivités locales et des services centraux ici au Sénégal j'ai été décoré médaille de l'ordre national du Lion à la suite d'une inspection générale d'État à qui dit ñu jàpp ni man ab dof laa bu xamul dara buy jóg di fecc waaye waaye dañuy seet ki ma feccal ko waaw ko feccal ah Bakri dégg naa ñu baax un régime politique d'un pays nga yaakaar ni du yàlla ko teg nga defee ni yàlla néew ci non nous nous sommes des spirituels nous nous à la connaissance du divin ay régime politique musuñu ci am lu mel nii barke Sëriñ Tuubaa man nag dara feesul sa mbët man man de su ko xootal man continuer demain que Béthio a rampé il a fait acte d'allégeance attention attention ils n'auront rien compris man de bañu maa la